dawal bu xamadi bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génnal dem balaa balaa balaa feexal génnal ko génnal ko fële génnal ko fële ñu dem génn ji nii dawal bu xamadi bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii xamadi dawal bu xamadi doon dawal lii noonu L200 bi li muy dawal xool nu mu dawal xool xool dawal boo xamante ni mu ngi dawal xool xool yaa ngi gis ah. voilà gis nga gis ngeen dawal bu xamante bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii dawal bu xamante bii borom oto bi dawal moo indi problème bii dama génn génnal dem balaa balaa balaa feexal génnal génnal ba fële génnal ba fële ñu dem génn ci nii dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bi kii moo indi accident bi ah. xamante dawal bu xamante doon dawal ñu noonu. xool ngeen beneen L200 bi ni muy daw xool L200 bi xool ni muy dawale xool xool ni muy dawale xool xool dawal bu xamante ni muy dawal xool xool yaa ngi gis voilà gis nga gis ngeen dawal bu xamante ni bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii. dawal bu xamadi bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génnal dem balaa balaa balaa feexal génnal ko génnal ko fële génnal ko fële ñu dem génn ji dawal bu xamadi bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii xamadi dawal bu xamadi doon dawal lii noonu